Euh, et et après xam nga man dama gis euh, leeral par exemple hier je pris sur moi de diffuser lépp loo xamee ni jëm na ci parce que dañu nekk ci màggalu Touba ñu nekk ci biir safar ma ne lépp luy émission teg leen ko def leen seen émission ngi ko doon defee lu jëm nag ci rédaction puisque presse la ñu wax ñu journée sans média dañu ne journée sans presse lu jëm ci rédaction nag nga xamee ne journaliste yi ñoom ñoo ko yittewoo wala ñoom ñoo ci ne mën leen nañu topp ñi nga xamee ni ñoom ñooy waa SEDEPS bon an mal peut-être sax euh, li ñu naan contre mauvaise fortune euh, xaw ma nan lañ koy waxeeti sax ci tubaab euh, ça ça va me revenir bon cœur su ma juumul tout simplement parce que aujourd'hui la question mooy et après kan moo organiser journée sans presse bi ak lan moo tax ñu organiser journée sans presse dañ ne ce sont les patrons de presse les patrons diffuseurs éditeurs ak yooyu de presse ñoo leen nañ def journée sans presse ndax lan nee nañu ni dañu am ay jafe-jafe ci suñuy këru tasum xibaar jafe-jafe yi mooy lan nee nañu mbirum fisc xam naa ni juriste fiscaliste bi dinañ ci mën a wax hmm. jafe-jafe bi mooy le modèle économique la presse est obsolète par rapport ak jamono bi ñu nekk même pas seulement au Sénégal mais à travers le monde mais Sénégal one est à la traîne par rapport ak loolu ñu ne jafe-jafe yi mooy tey kër yu bari ñu ngi ci ay euh, difficultés financières ñoo am ay contrats yu ñu signé woon ak ay entreprises yu bokk ci nguur gi wala ay direction wala ay euh, ministères ñu xëy dagg yooyu le contrat wala ñu aj ko le temps que ñoom ñuy saytu lan moo lëpp nekkoon ci biir contrat yi jafe-jafe yi ñu ne la tey dafa am problème de démocratie damay taxaw ci démocratie boobu dans la presse. Hmm. waa Alamine amoon sañ-sañu toog fi nga toog nii yaa ngi wax noonu man chaque jour ñu dégg ma ma wax ana ñàkkum démocratie su doon amuñu démocratie man je suis pas d'accord su doon amuñu démocratie je ne pourrais pas me permettre fi ma toog nii. mu mën a wax ci Diomaye président wala mën a wax ci euh, euh, Ousmane Sonko te duñ ma jël ne ma ràpp ci kaso bi j'ai la liberté et de manière démocratique j'ai la liberté de m'exprimer en tant que journaliste de faire mes de faire des reportages de faire de faire de faire donc sur le plan démocratie boobu c'est pas parce que fisc mu ngi tegu sa kaw ñu ne la TNT war ngaa fay revenons sur fay yooyu yëpp ñu war a fay gis nga bor ku ko fayul wala bu ñu ñëwee nee na baal nañ la bor c'est parce que amoon nga bor on de cinquante ou quarante milliards ne la ci quarante milliards yooyu nga xamee ni dañoon ko waroon fay trente trois milliards yi mu ngi duggante RTS Soleil APS. nga dem ci président la République Macky Sall ba woon dem ba ngay dem leeral woowoo ko. dañoo dugg ci kii bi nii rek juste pour faire euh, nuñ koy woyati euh, parce que ñëpp ànd nañ ci solidarité solidarité mm. parce que on les mêmes problèmes que les autres structures de presse on a les mêmes problèmes mais ñun ba ñuy am ay problèmes ba ci événement yi nga xamee ne amoon na ci 2024 jàpp 2023 ñu dagg suñuy micro ay reporter di sànni lacrymogène suñuy reporter xamala lañ ci am ñun communiqué. Quelqu'un l'a rappelé, Pape Alignan, il est journaliste. Communiqué lañ ci amoon. Madiambal Diagne patron de presse la yàgg na ci j'ai travaillé avec lui ci ay jamono tëj nañ ko fi la presse s'est mobilisée parce que dañoo jàppoon ni ce n'était pas normal ñeneen ak ñeneen walfajir yi tëj nañu fi dagg fi signalam Sen bii dagg nañu fi signalam CNRA def lu ni mel lu ko indi woon sax dañoo invité Ousmane Sonko mu ñëw toog le 31 décembre booba temps Macky Sall ma ngay def beneen conférence de presse am à côté gis nga la presse aujourd'hui dafa am loo xamee ni d'abord ci pootum biir la dañ ko war a si suñu biir xam nga mooy lan yaa excuse de le dire et excusez de le dire y a beaucoup d'hypocrisie ci suñu presse xam nga luy hypocrisie damay toog ak Alamine naan ko non yaa boo es beau tu es gentil tu donnes de l'argent ma boo ma nee ginnaaw ma wax ci yow lu mel ni xamee wala ma nekk fii ci sama plateau yekk beneen plateau wala beneen journaliste bu nekk ci beneen plateau lu mel ni xamee ñu jël ay nit wooye leen ay chroniqueur ñu toog ci suñuy média ñu leen di bàyyi ku ci nekk di am sax sañ-sañu wax ci presse wax naa ko fii un jour quand les gens ont la possibilité et la latitude de parler de la presse c'est parce que la presse n'est pas unie la presse n'est pas soudée et la presse d'abord il y a une certaine dose d'hypocrisie dans cette presse là tey un chroniqueur bu mën a ñëw taxaw ne non yéen presse bi nangam ñu toog bàyyi ko di ko seetaan je l'ai vu hier ou avant-hier dans certains euh, ci yenn ci ay médias ñu ne non c'est que premier ministre nee na presse bi nangam c'est parce que ñun ñoo ko may xamuñu ñu ko ko mayee parce que amuñu suude suude boobu ñoo waroon suude suudeewuñu ko parce que ñu suñu biir ku ci nekk sa intérêt bopp ngeen gis nga quand la convention des jeunes reporters dit que bokkuma wala dewuma ànduma ci mbirum journée sans presse mais man dama leen di applaudir xamul tax ñoom muy ñun laay wax parce que je suis encore reporter je vais sur le terrain damay dem defi reportage malgré le nombre d'années d'expérience lu mu tuuti wala lu mu gàtt condition yi ñuy liggéeyee ñun patron de presse yi ku leen neexoon tëj ñoom ñëpp ku leen neexee tëj seen entreprise de presse ndax am nañu weccit boo xamee ne bokkul ak entreprise de presse bi wala fu ñu jëlee seen weccit mais convention de jeunes reporters reporters yi yow mi nekk sur le terrain yow mi ak keneen ak keneen est que condition yi nga xamee ni ci ngeen war a dund ñu ngi koy dund non qu'on le dise et c'est valable pour j'ai fait pas mal de structures de presse am na ci ñu tane am na ci ñoo xam ne ñoo yées mais si structure de presse yëpp ña cay ña ca euh, euh, sàmmonte ak li nga xam moom mooy àq ak yelleefu reporter yi dañu koy wàññi euh, tey yaa ngi nekk nii ci plateau bi tey peut-être Euh, sa patron mën naa yëkkati ay ñaari costume wala ñetti costume ne pour nga mën ko sol pourtant dañoo bind nag ci bu dee ñu xool ay code de la presse ak convention ak yeneen ne la daa am benn prime d'habillement ana ñaata nit fi sol ñoo fi yore ay prime d'habillement dañ koy compter les salaires fii son misérables suñ koy waxee noonu pour les reporters est-ce que patron yi loolu dañ koy kaas nañu nañ def journée sans presse parce que salaire yi dafa dafa néew ci suñuy reporter est-ce que dañuy def journée sans presse parce que jàpp nañu ci ay événement ay journaliste dóor leen am na ci journaliste bu jigéen turam laa fàtte ab sa an brimé ko dóor ko ak ñeneen ak ñeneen Ngoone Saliou amul lu ñu ko waxul wala ay xuppaate ak yeneen ak yeneen combien de journalistes la ñu jël di leen di xupp di leen di menacer mës dégg journée sans presse patron yi organiser ko wala CDEPS organiser ko non hmm. donc ça veut dire que am na benn deux poids deux mesures mais surtout am na benn hypocrisie excusez-moi de le dire et je le répète parce que lu ma gëm la mooy mbirum hypocrisie mu ngi ci presse bi aujourd'hui tey euh, bu ñu dalee ci kaw leeral est-ce que du patron de presse yëpp journaliste yëpp dañu war a taxaw ne ni solidairement à leeral dinañ def nangam aujourd'hui on nous parle de euh, nañu réguler la presse avant ministre bi di ci wax c'est à la presse de se réguler elle comme ni ñu koy waxee. mais assainir lan ngay assainir looy assainir. Hmm. le milieu. Hmm. mais milieu bi mënoo ko assainir xamoo tax. Hmm. yaa ko bi yow mi presque. milieu bi mënoo ko assainir aujourd'hui wax ma benn média tey benn média ci lu ñu naan sur euh, ci paysage médiatique wax ma benn média boo xamee ne ci sa biir ay plateau jëloo ay chroniqueur ay nit ñoo xam ne qui n'ont absolument rien à voir avec la presse ay nit kii ñoo xamee ni yenn saay qui n'ont rien à faire devant un écran nga jël leen teg leen ne leen wax leen presse ba gën a siiw mooy bi dax saaga wala mooy bi dax wax si loo xamee ni euh, yenn saay da nga naan c'est pour le pouvoir wala nangam ak nangam et après on vient nous dire non euh, on a no euh, nos patrons de presse sont dans des difficultés te bu ñu nekkee dans les difficultés dañ koy ressentir ñun mais payez vos impôts ñi war a fay nañ fay seeni impôts dañ leen baaloon ñu jàpp ni baaloon nañ leen ndekk dañu leen a nax c'est ça l'histoire dañoo dem ci Macky Sall mu ne leen waa bon amee ngeen ne quarante milliards mais léegi euh, bon nañ leen ko baal mais fiscaliste bi dina dellu si ci lool baal boru presse mais dafa am yoon bu muy jaar 40 milliards yi xanaa dina dina dem assemblée nationale ci la ma yaakaar xanaa ministre du budget ministre des finances dinañ ci jot yóbbu ko assemblée ñu ne léegi kon budget bañ doon xaar 2000 milliards la ci 2000 milliards yooyu 40 milliards yi ci la bokkoon yi ñu ameel presse waaye comme président nee na nañ ko baal nañ ko voté pour dindi milliards yooyu bu boobaa nag patron de presse yëpp ne uuf. waaw fi ñuy jeexalee Birahim avant ñuy dem ci fiscaliste bi comme ni nga ko waxee une journée sans presse boo xëyee tey nga gis quotidien yu ci bëri ñoom ñii ne la signal fort ñii ne la une journée réussie finalement est-ce que c'est réussi est-ce que le signal a été perçu ci li nga xamante ne ñu bëggoon dëggantaan ngir ñu signal fort bi mooy fallait poser un acte ci li ñu jàpp yaa yu sur euh, euh, xawma euh, combien de de de quotidiens peut-être quatre ou trois ñoom ñoo ci paraître ñi si des ñëpp def journée sans presse c'est bien mais et après est-ce que l'intérêt aujourd'hui c'est ce bras de fer ak régime quel que soit le, le régime état presse defoon nañ fi journée sans presse jamonoy Macky Sall nañ fi ay ñaxtu ci jamonoy Abdoulaye Wade est-ce que cela a servi à quelque chose man j'attends de voir les conséquences bonnes ou pas de cette journée sans presse peut-être dans un avenir pourquoi est-ce que le président est allé recevoir la convention des jeunes reporters et n'a pas reçu les patrons de presse parce que xam nga ñooy sonn pas les patrons de presse ce son les journalistes sur le terrain ce sont les journalistes dans les rédactions ñooñu ñoo sonn quelquefois je me pose une question man mii journaliste nekk ci nanga meet est-ce que su ma demee retraite su ma demee ca caisse de dépôt euh, caisse de euh, de caisse de sécurité sociale su ma demee IPRES ndax danaa danaa fa gis dara ca la ma liggéey yépp ñu ne la dafa am patron yoo xamee ni ci biir presse bi au lieu ñu teq loolu ñu war a teq ci sa bulletin de salaire nee na nangam pour cent moo jëm ci lii ak lii ak lii da ngay dem fin sa sa sa sa carrière jeex wala nga dem ba retraite nga ñëw ñu ne la ndekete kenn verselu la woon xamul tax verselu ñu la woon mooy la patron yi dañ la dañoo amel bor waa IPRES dañoo ameel bor caisse de sécurité sociale parce que la ñu doon dagg Alamine Senghor dugg ñu ko ci biir parce que patron ba dangay ngay taxaw wax ak moom mu ne la comme deux millions laa jot je préfère fay salaire nit ñi léegi su ma paree ma taaba taaba pour lijjanti na may jëlee xaalis bi war a dem ca IPRES ba war a dem ca caisse de sécurité sociale ma dugal ko fa nga def ko un an def ko deux ans bor yi di accumulé wu nga xëy ñëw ñu ne la ci waaye quarante milliards de dette ci biir dette yooyu yeneen ak yeneen ñëw na ci TNT dañ ko war a fay les gens n'en pas may ñu tuuti léegi nga dégg ñu ne la euh, ARTP tamit nee na presse bi tamit yéen médias yi def leen nangam ak nangam c'est le modèle qui n'est plus viable et malheureusement les gens n'ont pas le courage de s'asseoir pour parler de ce modèle économique comment faire pour rendre nos nos médias euh, suffisamment performants financièrement et tout est-ce que dañu war a xaar lépp ci état en termes de publicité en termes de dañ ah de la presse à la presse. Mm. mais léegi est-ce que toutes les entreprises bénéficient d'aide aujourd'hui je ñu génn secteur presse nga jël BTP wala nga jël est-ce que ya a une aide xam lan lañ mën def mooy marché tegu ñu ne nañuy privilégier les entreprises sénégalaises mm. te même loolu gis ngeen nu fi xew mooy nii da ngay privilégier benn entreprise sénégalaise beneen entreprise sénégalaise wala beneen patron d'entreprise ñëw di xarab. entreprise sénégalaise boobu mu xeexoo ba finalement yow miy joxe sax na naan je préfère jox ko bitim réew parce que euh, ñii seen biir déggoo ñu amul consortium amul euh, dara loo xamee ne mën nañu déggoo ci seen biir et c'est exactement la même chose pour la presse aujourd'hui qu'est-ce qui nous empêche comme dans d'autres pays mais demal par exemple en France yu ne la Vivendi moo jënd moom nangam ak nangam ak nangam ci groupe de presse waxee lépp yépp nga boole ko ci ñu yore seen xaalis di mën a lijjanti ba nga xamee ni presse boobu dina viable te xaaruñu ci état français ñu jox leen ay publicité parce que ci consortium ba nga xamee ni moom mooy Vivendi di nga ci gis entreprise BTP di nga ci gis nangam ak nangam ñii ñooy jël comp ci lii pour jox lii dafa mel ni groupe de presse nga ne euh, Leral TV Euh, la muy gañe ci lay génne pour jox ci biir leeral FM euh, ca la euh, leeral FM ca la muy moom lay jël di ci jox leeral point net mais au moins dina am benn benn benn nu ñu ko weeti waxtaan boo xamee ni ci seen biir ci ay patron de presse mais defoon nañu fii Vox Populi xaw ma non le populaire info 7 ak yooyu Baratal Cheikh Dial Cheikh Tall Dioum ak Youssou Ndour bokk ko fan la mujjee tribunal C'est ça en fait la difficulté dans ce pays-là. Donc vraiment, moi ce que j'attends, moi, on a fait une journée sans presse. Les, quels sont, euh, ou quel est le résultat de cette journée sans presse Est-ce que dina tax ba président de la République recevoir leen bind nañ ko lettre nee ñu benn yoon xaw ma ñaari yoon tontuwu leen mais nit euh, nit da ngay am fulla man su ma demee fëgg nit benn yoon ñaari yoon euh, wuyoo ma ndax dama ñaan peut-être lu ma dépensoo parce que peut-être xaw naa compliqué mais dinaa seet beneen moyen bu mu mën a jël ba nit kooku nga xamee ni da nga doon fëgg bu la rombee gis ne ah ndekete tey am na dépense c'est parce que organisé wu nga mais ñun suñu presse bi moom je suis mais c'est pas de l'autoflagellation mais il y a beaucoup à dire. une presse dispersée euh, mën nañ ko wax.